Euh, Sénégal comme voté nañ ay loi ci mariage d'enfant ak tamit exclusion mais ñu jàppale ñu ba ñu appliquer loi yooyu noonu. parce que bu ñu fi jógee objectif bi ñu bëgg dinañ ko atteindre parce que comme dañ leen a promis ñun dañu bëgg a encadrer ñun 20 jeunes dañu bëgg a encadrer 800 xale te 800 xale yooyu d'ici 2 ans dinañ leen encadrer parce que an ah, bu nekk dañu war a encadrer 400 enfants. avec li ma gis nii ak participation bi jeune fille yi def ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk si biir gëm naa ne bu ñu fi jógee suñu objectif dinañ ko atteindre trois jours formation bi wax nañu lu nga xamante ne nii ñun ñëpp am nañ ay expérience am yoo nga xamante ne nii bu ñu demaatee terrain bi dinañ mën a am ay support de communication approche formation bi approche bu intéressant bu nga xamante ne ñun ñëpp ñu ngi ciy gis suñu bopp